باسم الإله يمالها بلا مناع ولا انتهاء عبدا لربه غير المربي غدا yéen yéen a fenta ñam yàlla lu tax ngeen soxor lu tax ngeen soxor laa wax toujours seen seen groupe bu leen ko du lu xeex murid yi ak xeex diine ku nekk da ngaa da a nekk si la nga gëm mais doo fi ñëw naa yi lii ak laa laa sëñ Tuubaa li ko yàlla may deful ko kenn sëñ Tuubaa yàllaa ko may yàlla da kaa gërëm yeneen bi gërëm ko kon nag bu nekk di wax di xaar li wax li wala laa yéen a waaye mel ne dañu leen yeboo dañu fay ngeen koy wax ngeen chaque jour ngeen nekk nekk ci wax ci murid lu nekk chaque jour chaque jour ba kañ yéen yéen a yabaate aw su fekkee ab thème rek ngeen bëgg wax seen bopp doole leen sëkk mais doole nekk fii di wax ci sëriñ jàmbur yeeg gëm leen li ngeen gëm kay li ngeen gëm li nga war a gëm te bàyyi nit ñi mu ne fi nekk bëgg a xeex diina yi bu lu nekk ngeen wax ko si wax ju salte lu nekk ngeen teg koo xam ne yàlla da kaa gërëm yi yoneen mi gërëm ko ngeen nekk lu nekk yàlla ngay bokkaaleeg lu ma xamul sa wax ji mooy waxi lan yi nga moom nii ñu wala nga dëgg dafa neexoon nag dëgg gi leen metti moo ngeen bëgg a dégg waaye fii dëgg rek lañ fi wax seen watu waa saw génn xaq yéen nga wax nii da ngeen ciy nekkul yéen booy booy jàngale dangay ngay fekk nga nekk ci dëgg mais nekkoo ci dëgg nekk ay caaxaan nekk yu daal ngeen mag ngeen wax nag mooy mooy ci torox doo ngeen jug ci torox ci torox te doo ngeen jug gis nga fii li leen metti kenn tegu leen ko yéen a seen bopp fekkee da gëm li nga gëm nga gëm si li nga gëm wax si la nga gëm mais doo fàtte ay nit yi gëm leneen ngaa nag ci yem wax ci leen wala ngeen gaarawaaleeg lu teg ngeen waxtaan seen yi ngeen def amul amul benn sens amul benn sens. yéen sëriñ bi bind fii bind fii bàyyi jëf ngeen gis wax ngeen dégg ngeen nekk fii ngeen nekk lu teg ngeen wax ko ko sa wax ji moo waxee lan. baal ma waaye wax ju bon moom wax ju bon moom yéen a fi yéen fi indi wax ju bon moom mënut weesu. jël jàpp tarixe jàmbur lu ne nga wax ko ci lu ne nga xas ko ci lu ne nga wax ko ci wax ju bon moom ci yéen a fekk baax nga fi képp ku nekkub jullit ñuul war nga sante sëriñ Tuubaa képp ku dib jullit laa kaa war nañ kaa sante sëriñ Tuubaa fii képp ku fi wax loo war ta wax ku dal ku dal si sama kaw sëriñ damay dal ci yow parce que nekkul di ngaa ibbi sa groupe loo neex nga ci wax loo neex nga ci xasaate kii loo ku fi war a wax loo war tax dañ lay tontu a ci yem A Z. baal ma waaye wax ju bon moom wax ju bon moom yéen fi yéen fi indi wax ju bon moom mënut jàpp taraxe jàmbur lu nekk ko ci lu a fekk baax. yow si laaj ngay wax si laaj yàlla ngay wax li ngay wax dara amu ci li ngay wax dara amu ci. fii ku fi am sa wasila pour jëm sa yàlla pour mu awale la ci yoon la ci yàlla waaye bu fex naa ne kii dañu am seen yàlla bopp ak fii kenn bokkaale wu fi su fekkee affaire bokkaale affaire tooñ ngeen def après jëm bërkaa bërkaa jëmale ci keneen seen yi ngeen def dafa amul benn sens amul benn sens nga nit moom bala ngaa jàngale tey bala nga jàng set da fekk nga set ba pare doo kaa jàngale li nga yéen moom yoonu morit moom tuuti ngeen ci ak pépp suuf ngeen ci bépp suuf ngeen ngeen pour tuutal ko ci yoonu muri moom tuutal ngeen ci lool pour tuutal ko da ngeen wax ba sonn waaye mënu leen ci dara wax ba sonn bàyyi nag yéen yéen ñi nag yéen foogul dara dara lu ñu mënti dégg parce que dëgg dëgg leen sëñ bi wax moom ngeen nangu te dégg yéen lu leer lay wax ngeen dégg moom ngeen bëggu def seen nopp yi nag gis nga booy daajake wekki da nga war a daj sa wekk sa bopp ba pare setal sa bopp ba pare ba set doo wax feneen yéen di ngeen yabaate billaahi di ngeen yabaate si ngeen def manqué respect dongo ak tooñ ak tooñ dongo nag tey bu ñu waxee nga ne ay tawxiid ak bu ñu ne ay kii ay watawaata bi xaq ngeen def nii kiwu leen ci dara li ngeen def nii seetu leen ci yàlla pour tooñ moo tax ngeen ju ngeen koy def. gis nga lii laa lay waxati kii ñëw na fi mu toll nii naan ko xam ne yàlla da koo gërëm yonent bi gërëm ko kii fa kan wala ne yàlla da koo gërëm. ci ban téere la ko yàlla gërëmee ci ban kii la ko yàlla gërëmee yàlla da koo gërëm yent bi gërëm bi ngeen nekk fii di wax ci moom nekk ci sëriñ jàmbur yeeg yooyu lii di metti lii la kaay leen ci débat bi asalaamaaleykum wa rahmatullah yëkkati fitna la xalifa général képp ku nekk ci whatsapp bi mbokk mi maa ngi lay siyaar bu baax a baax dégg naa nga ne ku dal ci sa kaw sëriñ nga dal ci nga dal ci kawam waxal kan mooy sab sëriñ benn ñaareel bi mooy fa nga groupe bi maanaam dal ci kaw yu sëriñ da koo taxat a jóg groupe bi li ko tax a jóg mooy dajji caaxaan yii nga xam ne moo nekk ci réew mi caaxaan ñu téye ci suñu ndey téye ci suñu bàjjan téye ci suñu nijaay téye ci suñu mag téye ci suñu rakk depuis ca temps colonial tubaab bi dem bàyyi lañu fa geneen buumu njaam buumu njaam googu nag téye ñu téye suñu maamaati maam doon dóor téye suñu maam di dóor téye suñu baay di dóor dóor yi egsi ba ci ñun ñu comprendre dóor yi ñu taxaw bëgg koo lànk loolu moo fi am mais groupe bi tiggiwuñ ko pour dal ci kaw sëriñ kooku na leer ci sa yuur gi ok waaw mbokk mi maa ngi lay siyaar bu baax a baax ba tey yëkkati fitna la dégg naa nga ne ku fi wax lu mu wër ta wax da koy tontu ci groupe bi waaw loolu koy d'accord nañ ci ci yow waaye réew mii di Sénégal tamit képp ku fi wax loo fi wër ta wax koo mën a doon kuy sol tubéy mbaa ngay dañ lay tontu way sañ bi nga am ci nekk ci groupe bii nit wax nga tontu ko sañ-sañ boobu moo ñu may ñu nekk ci réew mi ak ku mën a doon kuy sol tubéy mbaa muy waddu su waxee lu laal réew mi wa ilaa mu wax laal diine ji ñu am tontu ko li muy wax nag bu génnee ñaar yooyu ñun suñu yoon nekku ci bu génnee réew mi génn diine ji suñu yoon nekku ci mais bu laalee diine ji wala mu laal réew mi ku mën a doon kuy sol tubéy mbaa muy waddu ñun buñ ko bëggee tontu dañ koy tontu salaamaaleykum. dama ni sawaay nga bàyyi sa caaxaan yi nga naa képp ku jullit war nga ko sant sañ diw rawatina nit ñuul ñi mbirum jullit lu ci indi nit ku ñuul la ko weex yow kay waxal rek ne leel yàlla nee na yonent bi nee na bu ko nit ku weex déggee jariñu bu ko nit ku ñuul déggee jariñu du ngeen bàyyi seen xaajaloo yi